Merci. Salam alaikum, Monsieur les ministres, mesdames, messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, abordé woon nañu en commission yon bi nga xam ne moo nekk Ndindi ak xéer mo waxone la importance bi vous bobu am ci war ko réaliser waxuma ñi fa dëkk mais élèves yi mala waxone né la 5000 élèves yoo primaire secondaire ba terminale ñu fa li si ëpp 95 de ces élèves Touba la ñu jóge ak risque yi yoon bi am gis naa ne nee nga ma c'est prévu dans le cadre du PSD mais dama lay fàttali rek yoon boobu surtout les élèves defe naa lu yàkkamti la farata la waxoon nañ tam ak sama yeneen collègue ci route Taïf Sadio Taïf Sadio tam nee nga ma projet la boo xam ne di ngeen ko intégrer dans les programmes futurs ak marché lu maam bu mag boobu nga xam ne chaque semaine am na ñu fay dem mais yoon bi naqari na trop monsieur le ministre xaw ma mus nga dem Sadio xaw mus nga dem Kéré Mbaye mais yoon yu doy waar la yoo xamante ne lu ñu war a gaaw intégré la kon si programme yooyu. Touba Mbacké commune de Touba Fall 16 kilomètres la Touba Fall di dëkku Cheikh Moustapha Fall taw Cheikh Ibra boo dëkk yu bari nag Kawsara gébb yi ngay dégg Beto Madina amul yoon yoonu suuf rek la kon loolu aussi dinaa ko boole ci exigence yi. mangi félicité wa Touba ca kanam ndax bari na yoon yu bari ñu def Touba waye yoon yu bari nag monsieur le ministre xuma problème assainissement lam parce que yoon yi dañuy dag bu nawet joté nga gis yoon dag da fay def ay tata bu paré yoon yëpp ben nekatul yoon bu praticable auto euh, yi les véhicules gis nañ les programmes de paiement affectés au programme de développement et modernisation des services de transport sont réduits à 48,5 te gis nañu auto yi surtout lool tamit yeneen wax la yoo xam ne ñu ngi koy wax c'est en léthargie transport public yi garage boo dem auto yu màgget nga fay fekk cette place yi nga xam ne moom la nit ñi doon gën a emprunté ñoo gën a màgget donc euh, daaniki bu dee Touba gee alu Dakar yeeg surtout 4 406 euh, yi yooyu mooy yi nga xam ne moom la nit ñi gën a emprunté kon affaire transport boobu tam bokkoon na ci exigence yoo xam ne doon naa ko signalat waat euh, loolu laa la doon fàttali waxoon nañ ko ci programme bi je vous remercie me assistiram.